bonjour bonsoir asalaamaaleykum waa Sen Mobile TV c'est di ñëw tey si une nouvelle vidéo dans seen nouvelle vidéo je vais vous montrer comment ajuster votre magasin ou bien votre lieu de travail ou bien votre maison ou bien ce que vous voulez sur Google Maps te loolu leen bëgg ñëw tey wan leen ko maanaam ngeen dugal seen kër wala seen lier de travail wala seen euh, magasin wala loo leen bëgg si Google Maps xam nit ku bi vis visiter Google Maps rek dina mën a gis sa lieu facilement oui tey loolu leen ñëw tey pour wan leen ko sans plus tarder je vous invite à vous abonner dans ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour recevoir tous mes prochaines vidéos pour faire ce procédé c'est facile il faut tout d'abord télécharger Google Maps boo amul Google Maps da dem sur Google Play Store bu ko defee nga télécharger ko mais téléphone yu bëree bëri dafay àndaale ak li nga xam mooy Google Maps oui da koy àndaale mais bu fekkee sa téléphone amu ko mën nga ñëw ci barre de recherche bu ko defee nga bind li nga xam mooy Google Maps bu ko defee day ñëw. ko defee boo ko bindee automatiquement dafay ñëw léegi ñu ñu essayé ngeen xool léegi boo boo bindee Google Map léegi voici Google Map téléphone yu bëree bëri am na ko oui euh, mais yow bu fekkee amagoo ko dang koy télécharge gis nga moo nekk nii léegi après avoir téléchargé Google Map oui euh, voici Google Map maintenant oui après avoir téléchargé Google Map vous le cliquez vous faites ouvrir Google Maps et après avoir fait ouvrir vous activez votre localisation pour euh, pour pour Google Maps euh, détecte votre euh, localisation tout d'abord on active notre localisation on clique ici oui maintenant euh, vous voyez ce que nous demande pour continuer activer la localisation de l'appareil qui utilise le service de localisation de Google maanaam dañu war a activer suñu localisation maintenant on clique OK pour activer la localisation maintenant on clique ici pour déterminer notre localisation et on patiente quelques secondes on patiente oui j'espère que vous le voyez après avoir cliqué ici j'espère que voici notre localisation vous le voyez voici notre localisation gis nga fii Thiès la quoi gis ngeen fii ay koñ la ay cité Malamine Senghor et cetera oui comme niñ ajusté nii koñ yi ni tey loolu leen leen bëgg ñëw tey wan leen ko noo leen koy defee gis nga kii restaurant am la ajusté xam nga kii nii ay cimetière la armée gis nga kii tamit restaurant la et cetera lii pharmacie la moo tax waaw comme lii ni ñu ajusté seen information yi xam mën nga fi bës dem ba seen lieu xam nga facilement te loolu leen bëgg ñëw tey wan leen ko waaw pour lii nag ba leen ko bëggee def c'est facile da ngeen di cliquer li nga xam ne mooy seen logo bi logo bi nekk ci kaw sa compte Google bi fa ngay cliquer boo si logo bi léegi lan ngay def da ngay ñëw fii nga xam ne moom mooy def ajouter votre établissement léegi da ngay ñëw nga cliquer ci ajouter votre établissement vous cliquez ici ajouter votre après vous patientez quelques secondes oui que ñëw na léegi lan ngeen def da ngeen di bind fi nga xam ne mooy seen établissement Euh, noo d'état établissement mooy maanaam tour li nga xam ne bëgg nga ko al si bu fekkee sa kër la kër gu siiw la nga nga bind ko exemple li ci mel ni kër kilifa diine ay kër sëriñ nangam kër sëriñ et cetera bu fekkee tamit sa magasin la nga def magasin cosmétique bu fekkee cosmétique nga yor wala loo mënti yor danga koy bind ci kaw et cetera loo mënti yor man léegi yor ma magasin yoruma kii damay bind léegi sama li ma xam ne mooy sama chaîne YouTube bi muy chaîne mobile TV léegi loolu laay bind damay def chaîne mobile TV bu ko defee c'est juste exemple gis nga. léegi damay def seen mobile TV léegi ajouté seen mobile TV léegi da ngay ñëw fii catégorie d' si lan ngay yëngu léegi catégorie d' activité da koy def léegi man si technologie laay yëngu léegi damay def technologie waaw bu ma neexee mën naa jël fii nii technologie parc wala ma def technologie rek waaw mën naa jël technologie parc mais si looy yëngu ngay def après nga def suivant ci domaine bi ngay yëngu quoi bu fekkee magasin la ngay def magasin. bu fekkee tamit loo mënti yore da nga koy def waaw fii mu ne lan euh, souhaitez-vous ajouter un lieu que vous vos clients peuvent visiter comme un magasin un bureau waaw bu fekkee da nga yor benn bureau wala benn magasin boo xamante ni bëgg nga clients yi ñëw di fa ñëw di xool et cetera da ngay def wii bu fekkee yoroo ko da ngay def no xam nga mais comme que genre magasin mun mën naa ne représente suñ kër léegi damay def wii léegi boo def ma def suivant gis nga gis nga fii nii mu ne quelle est votre adresse lan la gis nga léegi Sénégal mooy sa adresse Sénégal nga dëkk mais bu fekkee beneen dëkk nga def fii da ngay sélection di dëkk bu ko defee nga def dëkk bi nga ci def fii sa adresse postale la adresse postale mooy fi nga dëkkee quoi léegi bu fekkee xamoo sa adresse postale mun nga kaa bàyyi léegi fii ville bi fan la exemple suma ville Thiès la léegi damay def Thiès et cetera waaw léegi mën nga def suivant mu ne adresse postale c'est Euh, faaw nga def ko adresse postale moom bu la neexee mën nga dem ci Google bu ko defee nga tàpp ko mais man am naa adresse postale mais damay ragal yéen ñi seetaan ngeen bañ ko am mais boo demee ci Google boo tàppee comment retrouver mon adresse postale dina la ko wan bu ko defee nga def ko léegi man damay def sama adresse postale gis nga sama euh, kii bi adresse mooy maanaam sa. koñ bi boo ko bindee léegi code postal moom c'est pas important mais adresse bi moom mooy maanaam sa koñ fi nga dëkk exemple gis nga li ma def fii Thiès euh, quartier Malamine Senghor et cetera yow mën nga dëkk euh, Dakar gi ginnaaw raay et cetera wala nga def Pikine xam nga yéen a xam waaw loolu la mais lii code postal bi boo ko kiiwee automatiquement mën na gérer sa localisation génne la sa code postal mais lii ci kaw adresse la léegi nga def suivant léegi boo defee suivant mu ne fii nii gis nga où êtes-vous situé mu ne fan nga situé gis nga man maa ngi situé Thiès ni gis nga loolu la léegi moom dala koy bu fekkee localisation bi tàkk na dala koy déterminer détecte euh, automatiquement mais maintenant bu cliquer suivant après avoir cliqué suivant ou patienter léegi lu mu la wax fii ni proposez bu des livraisons ou des visites à domicile et au bureau bu fekkee bëgg nga tamit gars yi di ngay proposer ay livraison wala nit ñi ñëw di la visiter et cetera mën nga bës wii bu ko defee ñu bës wii ñu xool après la ñuy def suivant gis nga mu ne fii ajouter les zones que vous euh, décevrez euh, facultative mu ne nga mu ne xaar les lieux où votre établissement propose des livraisons ou des visites à domicile ou bureau s'afficheront sur la fiche de votre établissement waaw mu ne maanaam nga associé zone yi nga xam ne daal dinañ la fa mën a proposer ay livraison wala nit ñi ñëw di la fa visiter et cetera bu mën nga def Thiès wala nga xool fi la neex rek Dakar et cetera wala wala eh, foofu moom da lay neex nga associé gis nga Thiès ouest wala Thiès nord yow nag boo bindee Dakar automatiquement mën a la proposer ay Guédiawaye et cetera li man Thiès ouest la léegi mën naa def Thiès ouest bu defee ma def suivant mën nga associé waat ba léegi lu la neex ba la neex mën nga associé waat Thiès maanaam nit ñi di la euh, visiter si quoi léegi mën na def Thiès et cetera j'espère que comprendre nga léegi ma def suivant léegi ma defee suivant fii sama numéro de téléphone la may laaj léegi da ngay def sa numéro de téléphone euh, def nañ si numéro de téléphone fii sa site web la maanaam site web bi nga yor mën nga ko fay exemple mën naa dem copier sama chaîne YouTube bu ko defee ma ñëw def ko fi léegi damay ñëw copier ji sama chaîne YouTube. bu ko defee ma ñëw def ko fi moo gën a logique yow tamit bu fekkee yor nga site internet da ngay dem nga copier ji sa sa sa sa kiiw site bu ko defee nga def ko fi quoi moo gën a logique léegi damay bind seen mobile tv gis nga chaîne mobile mu ngi nii ooy boo abonné ma invité la nga abonné ci chaîne bi te activé cloche bi copier sama lien chaîne bu ko defee bu ko defee damay damay copier sama lien chaîne copier naa lien bi léegi ma ñëw ajusté ko ko bu ko defee nit ñi de mën a gisaale site bi waaw lien chaîne YouTube site la rek gis nga lien bi moo nekk ni gis nga euh, YouTube tiré Senwood TV léegi ma def suivant léegi après avoir fait suivant gis nga léegi lu ma wax mu ne vous vous souhaitez recevoir des informations et des recommandations concernant votre fichier d'établissement sur Google léegi mën nga def wii maanaam di jot information yi et cetera léegi ñu def suivant bu defee suivant ñu patienter xoolal la ñuy wax oui c'est comme ça le procédure pour ajouter votre établissement sur Google Maps léegi lan la ñuy wax mu envoyé ñu SMS wala euh, pour pour pour pour ñu mën a valider affaire bi quoi léegi dañuy def SMS. SMS bi ñu defee SMS danañ envoyé benn code boo xam moom lañu war a dugal fii pour mu xam ni numéro bi ñu ñoo ko moom léegi dañuy def suñ code pour mu wanal ñu numéro bii ni ñoo ko moom léegi dañuy patienté code bi ñëw na léegi dañuy wàcce bu ko defee ñu xool code bi code Google bi code bi moo nekk nii un 401 884 401 884 comme ça léegi ñu def valider. après avoir ver validé c'est comme ça gis nga léegi ñu def suivant votre code a été accepté léegi ñu def suivant gis nga léegi ajouter des horaires d'ouverture gis nga informer vos clients de vos ouvertures léegi bu la neexee mën nga def yëpp ouvert gis nga bu la neexee mën nga def toujours ouvert bu la neexee tamit bu fekkee amoo jot mën nga régler exemple lundi heure bi ngay tijjee exemple 9h ba 10h et cetera yéen xam leen neex ngeen ko def man damay def yëpp toujours ouvert xam nga toujours affaire mais yow heure bu la neex mën nga ko régler gis nga boo régler ba say fii mën nga régler heure bi ngay ubbi bi ngay tëj heure bi ngay ubbi bi ngay tëj bu fekkee dimanche waa dimanche bi def ko fermer bu fekkee dimanche mën nga def fermer et cetera bu fekkee ni nga xam ne magasin ngeen yor da ngeen di tijji dix heures et cetera di tëj di tëj di tëj vingt heures yéen a koy régler fii nii ouverture fermeture gis nga foofu ngeen koy régler quoi j'espère ko comprendre ngeen léegi ma def suivant gis nga moom sax insisté na ne ma fa ma def heure bi gis nga faaw ma def heure kon cela veut dire que ni fallait que ñu def heure bi gis nga vingt quatre heures sur vingt quatre moom laa ko bëggoon a def maanaam de man du man tàmmuma heure mais yéen yéen yéenay xool heure bi ngeen bëgg a def bu fekkee neuf heures de neuf heures à vingt une heure wala de dix heure à euh, vingt deux heures et cetera yéen yéen a koy def mais léegi man vingt quatre heures laay def yëpp mu ko defee mu gën a yomb ci man parce que yooyu moom du sama problème mais c'est juste un exemple pour vous montrer ko léegi vingt quatre heures laa koy def gis nga j'espère que comprendre ngeen ko quoi vingt quatre heures waaw dimanche ma bàyyi ko léegi ma def suivant ngeen xool léegi def naa suivant léegi lu ma wax personnalité personnaliser mon profil ajouter à la, la messagerie offre vos clients la possibilité de vous envoyer gratuitement des messages via Google léegi bu la neexee mën nga def accepter les messages waaw léegi nga def suivant waaw léegi mu ne la description de vos établissements waaw mu ne fii nga def sa description pour sa établissement waaw léegi nag yow si sa si sa li ngay yëngu moom ngay bind fii nii d'inscription fekkee cosmétique nga ne yow si cosmétique nga yor da ngay jaay ay ay ay diw et bu fekkee da nga yor magasin xam nga nga def ko bu fekkee sa kër la nga def seen kër bu fekkee loo mën a yor rek mën nga ko mais bu la neexee nag c'est pas obligatoire bu la neexee mën nga dem defar sa inscription bu yaañ nga ñëw ajusté ko bu la neexee mën nga fi bind moo yu ndaw ndaw rek xam nga exemple nga man mii xamante ne wàllum tuto laay def exemple ma neexee ma def euh, bonjour bonjour euh, ma def euh, virgule exemple près exemple ma ma daal di wax sama tur bonjour c'est papa gis nga c'est papa je fais des vidéos des vidéos gis nga je fais des vidéos et cetera c'est juste un exemple rek je fais des vidéos tutoriel tutoriel en en mode techn en je fais des vidéos tutoriel en technologie et cetera en technologie xam nga et cetera yéen xam daal li ngeen di bind après ngeen def suivant mais c'est juste un exemple pour vous montrer quoi léegi fii dafa wax pour nga ajouter sa euh, kii quoi sa sa sa sa benn photo moom ngay dem jëli photo bi nga xam ni moom mooy illustrer sa li ngay def maanaam bu fekkee magasin da ngay photo sa magasin bi def ko fi bu fekkee salon nga yor fekkee wàllum livraison et cetera da ko ciy def mais man damay dem jëli sama photo seen mobile TV bu ko defee ma ñëw def ko fi fii damay xaw a pause vidéo bi dugg sama galerie. way exemple bës naa fii ba dem jëli ji photo bi sama photo bi ma jël moo nekk suma photo profil bi léegi jël naa ko boo leen jëlee seen photo pare day dugg nii oto ngeen après ngeen def suivant boo leen defee suivant ngeen patient gis nga léegi lu mu wax la fiche de votre établissement et presque prête gis nga vous pouvez mettre à jour et modifier votre profil à tout moment mën nga changer sa profil nga modifier ko heure bu la neexee xam nga loolu la lay pour client yi mën di xàmmee quoi léegi dañuy def fii continuer on clique continuer après avoir fait continuer gis nga léegi mu ne bien bu ni dans le gestion depuis cet établissement gis nga mën nga def nii permis pas gis nga mu ne fii nouveau vous pouvez maintenant gérer la fiche de votre établissement directement en recherchant sur Google Maps gis nga léegi mën nañu gis si Google Maps facilement gis nga léegi ñun suñ kii baa nekk nii gis nga suñ affaire bi moo nekk nii léegi affaire bi dugg na boo demee nii sa boîte email da lay xamal ni yow léegi yow yaa ngi ci Google Map bi bu ko defee ñu dugg suñu email ñu les amis maintenant gis ngeen ni email bi moo nekk nii léegi ajouté nañ suñu information ci li nga xamante ni moom mooy Google Map léegi euh, buñ tàppee rek dinañu mën a gis ci Google Map j'espère que cette astuce vous a plu ñu leen invité ngeen abonné ci chaîne bi te activer la cloche pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos ok jaa ngeen jëf